Eva Mbaye ci xibaar yi Assane UNACOIS jàppoo yi sàkku ci nguur gi mu def ak bilang ñeel magasin de référence yu nu fi ubbi woon mbootaayu commerçant industriel Sénégal gis ne xalaat bi baax na lool jëmmal gi falak sooxe am UNACOIS googay amal tey assemblée générale béykat yi soble yi ganjool jaaxle lool ndax ñeenti junniy tonni soble yàqu ci seeni loxo bu nu sañoon ak taxawu jëmee ci nguur gi Touba Mbacké kilifa diine delloo nguur googee njiw ma mu leen baaxee danoo gis ne daa néew politique Ibrahima Fall candidat ci jongante 2012 tiit ci yëngoog fipp gu mën a am ci réew mi rafetlu wul it Abdoulaye Wade mi wéy di ngoy ci candidature am donte charte mu ne mayu ko lu ni mel ndaw yu PDS ba tey réeroo seen biir fësal nañu ko démb ñu àndee Kumba Gaye ak ñu àndee njiital UJTL Baxa nataal bi tey di portrait kenn ci ndaw yu PDS lañ leen di xamaleel maître Aliou Sow moo jiite conseil national de la jeunesse xalam gannaaw si yéenekaay yi Aliou Diassé ci machine bi mbootaay gii di UNACOIS jàppoo dina amal ndaje mu yaatu tey ci samedi ji assemblée générale occasion la ngir ñoom commerçant industriel yu Sénégal waxtaane jafe-jafe yi gën am solo ñu gën ko yittewoo taxaw ci réew mi waaye jafe-jafe yi nu wër ne ay réew muy sous région gi waa UNACOIS ci weneen wàll sàkku ci nguur gi mu daal di def ak bilan ñeel magasin référence fi bi yu am solo ci xalaat waaye yu am ak sooxe ci jëmmal gi Ousmane Ndiaye la nu ci àndal mooy secrétaire permanent bu UNACOIS jàppoo ñu déglu ko Jo Marone waaw de référence jotoon nañ ci defal ay proposition gouvernement bi concept bi baax na xalaat bi yéen ji ko lal rafet na parce que dañu gis ne prix lu jafe lu jafe maîtriser la gouvernement bi doon xalaat ban forme d'organisation lay lay taxawal pour que consommateurs yi mën a jot ci produit yi ci li ñuy teewoo ci wàllu marchandise te mu jàppandi xalaat bi rafet na mënees na koo dégg waaye fa ñu ko ni ñu ko doxalee ak ni ñu ko jaaralee damay jàpp ne moo yoon wi moo yoon wi parce que dafay jafe trop ci jeune boo xam ne dafa toll ci wut liggéey mu bokk ci li ñu ko njëkk mu yor boutique de détail weccit lu jafe gere la ci ku ko miinul tentation yi bari na risques yi na loolu bari magasin de référence yoo xam ne moo leen gàllankoor ba tey jii mënuñoo dem ñaareel ba dañu gis tey sos ay magasin yu bees li ñuy wax ci tubaab mooy réinventer la roue te jaru ko am na ay commerçant yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi ci quartier ñu ngi installé fépp boutique yaa ngi fi ñun defoon nañu diagnostic boo xam ne war nañ leen jafe-jafe yi nga xam ne boutique bu détail yëpp moom la ñu amoon muy problème d'organisation en amont et en aval ñoom ñu ñu organiser ba mën a gérer seen stock ba duñu perte nga xam ne duñu soxla dabu benn bénéfice ci li ñuy def seen bénéfice bi ñu ci war a am rek moom la ñuy topp parce que xam nañu ni ñuy war a gérer boutique bi normalement ñu leen war a dimbalee en amont ba nañ daan amee marchandise gën a jàppandi loolu ñun miin nañ ko xam nañ ko bu baax am nañ ci ay xalaat yu wér yoo xam ne proposé nañ ko gouvernement bi tuy naa ko pare woon na pour def premier réseau de magasin boo xam ne mu ngi doon toll ci magasin magasins gën cànneewu waaw ñu defar organisation bi muy dof waaye malheureusement jotuñu ci déggoo gouvernement bi. Ousmane Sy Ndiaye secrétaire permanent bu UNACOIS Jàppo fàttali ne samedi tey ji ndaje mu yaatu la ñu amal jagleel ko tolluwaay ak jafe-jafe yi Sénégal ak réew yi nu wër ci weneen wàllit waa UNACOIS bokk na ci lu nu nas mbëkk euh, di ak plainte kalaame ci yoon teg ci ndoddal Ahmed Fall Braya danoo gis ne du yoon nit di wéy di wuyoo seen aw tur ak raaya euh, di mandarga googu kuréel UNACOIS Jàppo béykat yi sobley gonjol bët gànnaaru Sénégal ci Ndar jaaxle lool junniy tonnes yi soble yu nar a nëb seen i loxo ngir ñàkkum client denc gi ay jafe-jafe moo waral ñuy sàkku taxaw ci nguur gi Mouhamed Nabi Sylla ci téeméeri tonnes yoo jël ci wàllu production soble bi nekk ci gànjool ñeent fukk yi nee nañ ci ay jafe-jafe amuñu ku ko jënd suñu gisee ni mu bare ci përëb bi lu ni mel yàqu-yàqu gën ci sax idib firnde su fekkee gis nañu gàllankoor yi ci juddu Aliou Ka ak Mouhamadou Ndiaye nekk ñenn ci responsable ñi amee mbir mbayub soble. bay ba ba marché yi commencé fees soble bi dox indi ay batu li ñuy waxee doon yët dinu jan di wax li li ngeen di wax amul fekk moo am moo nu jural lii sunu alal nag yàlla bu nu ko amoon nii la doonu béy ñàkkoon béy moo gënoon ci nun kon li ñu amoon dañu jël alal jàmbur di ko liggéey li ñu amoon daañu jël di ko tey soble bi ñëpp lebe nañ ci banque yi ak mutuelle yi gouvernement bi moo samp banque samp mutuelle bu fekkente ni ñun dañu jël ci xaalisu banque yi te banque bi ni ku ñu yóbbu la gendarmerie waa ministère de commerce ànd ak waa ARM ñu jëf lu ji jëf kon fan la noo fay bon bu leen topp ñu jaaxle ci lool tax kii di seen jiit Aliou Niang yokk ci li ni mel soble bi fees jël fii ñàkk moom fu mu dugg moo ko fi mel lii yàqu na fii président Abdoulaye Wade gis lii mu jéem geesuñu jàpp lañ ci lii bu dul loolu rek béykat yi mënuñoo def di ñorlee heure bi ñu doon jaay fekk na ba jëkkoon amul fu mu jaar moo jël place boobu amuñu fu ñu jaay moo indi soble bi yàqu ci àll bi importation bi ñu ko xam ne fi lañ ko arrêté arrêtement bi dafa am tardement mu bousculé deux mois et quelques yoo xam ni ci lañ waroon di jaay daaw mbumbaay rikoot guy ren mbaax mbaaw gànjool déegu njey ak yeneen dëkk dëkkaan yi ci gànjool ne ci ay jafe-jafe gannaaw gi nga xamee ni nawet bi mi ngi toog ndànk-ndànk te bërëb bi amul benn magasin de stockage boo xam ni war nañ ci mën a denc lii di soble si RFM ci ndar gi na Nabi Silla jërëjëf Mohamed diwaanu Touba Mbacke ba tey lu ñeel mbay mi waaye bu gerte gi bile yoon njiw bi leen nguur gi baaxee dañu ko xeeb dafa néew loolu tax kilifa diine yu bari delloo nguur googee njiwam Abdoulaye Fam diine yu bëri te bokk ci njabootu sëñ Touba ñoom day kontaan nañu dara ci gouvernement bi jiw bi nga xam ne ministère de l' agriculture amoon na aada di leen ko jox at mu nekk ren ji kat dañ koo wàññi bu baax a baax mu di nag mbir moo xam ne jamono yi ñu toll nii tax na ay kilifa diine yu bëri ci murit gi bokk ci xalif bi delloo nag seen kotaaw jiw loolu nag mooy li ñu taataane ci ay seede yu bàyyeekoo ci kilifay diine yu bëri ci Touba yeneen i seede sax ne nañ ñooñu le dañoo mere ministre de l' agriculture moom Khadim Gueye kilifa diine yooyu la jëfewul lu njiital réew mi ndax ne nañ depuis ba alternance commencé ak léegi président de la république da saxaloon ab kotaaw jiw bu am solo waaye ren jii dey am nañ ci mbetteel ndax jiw woowu leen njiital réew mi joxoon dafa wàññeeku lool rax ci dolli am na sax ñenn ci ñoom ñoo xam ne bokkuñ sax ci liste bi jéem nañoo jokkoo nag ak Khadim Gueye ministre de l' agriculture waaye mujjul antu Abdoulaye Fam Touba Mbacké RFM. jërëjëf Abdoulaye diine ji ci boppam nag euh, ña ko ŋànk di kilifa diine yi Sénégal ni nu ko baaxoo at mu ne ca diwaanu Louga juróom fukki at ci ren ñu amali ndaje ndaje moomee samedi tey jii la ñu koy amal ren euh, di ci waxtaane rek li nga xamante mooy jafe-jafe yi diine ji yëgoo gi ci war dogal yeeg naka la ñuy àndee marché ci ak moytul jullit yi jafe-jafe ni ma ko waxee at mucc la du ñàkk RFM incha allah àndaat ci ak yéen ci ndaje moomee ñeel diine gi Sénégal. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. fàttali ne diine yi lislaam la wàllu résultat baccalauréat yi ci Matam xam nanu yu mujj ñeel diwaan ga téeméer boo jël juróom fukk ak juróom yu tegal résultat yooyu nag inspecteur académie diwaan ga rafetlu ko lool Ali Bandel Niang. candidat yoo jël juróom fukk ak juróom yu teg tombal juróom fukk ak ñeent am nañu seen baccalauréat général fii ci région de Matam gannaaw jaaxle gi tukkee woon ci pàcc bu njëkk bi tomb yi mujjee wadd kon dañoo indi kon ab bànneex ci biir région bi mu tukkee ci jéego yi nga xam ne jàngalekat yi maanaam professeurs yi amal nañ ko ñu génnee ci xaaj bu njëkk bi Ngari fay di inspecteur d'académie bu Matam. école bi bëri na grève mais Matam dafa nekk région goo xam ne école bi rek moo joxe xam ci mbiru njàng professeur bi ñëwut élèves yi du jàng gis nañ ko fi Matam ay bés yoo xam ne que du bésu ouvrable ñu ngay dem classe ay professeur dañuy encadré seen élève ci guddi bu ñu doon def grève itam nañ seet plage yoo xam ne que grève bi bokk ci ñu demee ko classe yooyu aussi gis nañ ko naw nañ leen ci loola te ñu ngi leen di félicité ci loolu parents d'élèves yi aussi li ñuy def ci école bi fii Matam bëriwul région yoo xam ne ñu ngi ko cay def moom mi ñoo ganee Matam ci atub 2009 takk na ay bagaasam kon war fee jógee waaye bàyyi ci gannaaw ay jéego yu am solo yi nga xam ni kat am nañ ko mu ñeel njàngale mi ci diwaan bi mu jàppee ko rek ay jéego mu am ci njàppandalu jëwriñ bi gàlloo wàllu njàngale mi mi mu jàpp ni dugal na loxoom ci mboolem crise yi mës a judd ci biir njàng mi. ñi mu fiy wutu aussi maag ñoom a doon liggéey. am nañ ci ñoom yaakaar liñ fa defoon bu ñu toogee. def ñu denk di ministre de l'éducation Kalidou Diallo li ñuy njëkk xool ci moom mooy nekk na ministre boo xam ne que présent ci école crise bu am au niveau local dina ci def kent laay kattanam ba jàmm am mais chaque fois buñ ko sollicité lépp loo xam ne que mën nekk ci def def na ko ci gannaaw résultat baccalauréat bi xel yëpp ñu ngay xool booru commission ci lu ñeel CFE bi laata BFM bi nga xam ni mooy ñëw kon daal di tëj année scolaire fii ci Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaaw fi ci doon Matam pour RFM jërëjëf Ali Bandel Ibrahima Fall candidat ci jongante fii ci Sénégal Sénégal waneeg njaaxle njaaxleem ngir luy mën a yoot Sénégal nekk fippook euh, lii di lii di fitna euh, gannaaw dogalu Abdoulaye Wade bi jëm ci bokk ci wote bu sañoon daal moom Abdoulaye Wade euh, doxale doxalinu kilifa gu mag tegaat ci suuf candidature am boobee mu gis ne yoon mayewu ko Ibrahima Fall ñu déglu kook Jo Maxoon. Ces menaces ont trait à l'élection présidentielle. njortu fitna googu la ko waral moom mooy waajtayu waajtaayu jongante présidentielle 2012 yi te yaakaar naa ni wàllu ku nguur warul tax ñuy indi fitna ci réewum Sénégal te kenn xamewuñu noonu fitna goo xam ni sax dañuy dem ba larme bi di jël nguur gi wàllug euh, discours njiitu réew mi waxuma ci waaye nag dama yaakaar ni mbirum constitution daf ko leeral ba mu leer naññ wàllu constitution boobu dafa euh, tranché li nga xam ni sax moom moo di débat bi su fekkee ni conseil constitutionnel war na ci wax moo ciy wax waaye dama yaakaar ni xel ak mat ak dal sagesse war na réew mi war na mën a am dal ak sagesse goo xam ne nii war na jël décision bi nga xam ni moom la ñuy xaar ci moom. constitutionnel ne devrait pas mener à des décisions de sagesse de sa part. Ndaxte Diop ci tekki gi ñeel yooyee kàddu yi professeur Ibrahima Fall doon jiite conférence bu ñu doon waxtaanee démb wàllu vérité dëgg justice ak yoonal ak réconciliation benn ak jubbo manifester gi association Sénégal bi di ñi bokk ci ordre souverain et militaire de Malte doon ko amal euh, ab xaajat ànd ci biir ndaw yu PDS UJTL fësal nañu ko démb ci seen dalab parti jamono yu ñi nga xamante ni ñooy waa Bara Gaye di njiital UJTL waneeti ni ñu ko waxee kujjee seen digg ak ñoom waa soxna Kumba Gaye Madeleine a nga fa woon. ñaari ndaw libéraux yi ànd ak Koumba Gueye ak ñi fareeg Bara Gueye di njiitu UJTL ministre conseil bi Koumba Gueye ne salle biñ ko digoon dafa mujjee am ñu ci nekk wande li lay du ko tere muy dëgëral xeexam ci wetu Ablaye Wade. jaar nañ procédure bi ñu waroon jaar pour mën a am salle ci biir permanence bi. waxoon nañ tamit ak administrateur euh, wante daf ñu amal léegi ci ngoon gi que dafa am réunion bu am ci biir mënuñu yegg ci biir salle bi moo tax ñu defee ko fii ñun nag ndi ndaw parteem nga xam ne dara ñoruñu lu dul Ablaye Wade ñu ne tey jii dañuy ñu farek Bara Gueye général bu UJTL di wane ne ñoom la ndaw PDS yi wóolu teg leen fi. ñu dem élection ki gañ a gañ donc kooku kenn gënu ko légal kenn gënu ko légitime mënuñu comprendre nag ci li nga xam ne ci baatu parti bi la ñu ci woote pour waxtaan ci pour muy doon daje pour muy doon lu mu mën a doon mënuñu convoquer secrétaire général national muy Bara Gueye kooku ko comprendre gàcce la que suñuy adversaires yi donc loolu ñu ñaan la fin secrétaire mu déggee. mu mettre un terme à ces agissements. ci ñaari parti yi nag ku nekk di naan moom moo créé mouvement bii di Y'en a envie xeex mi ci biir UJTL sori ci njeexitalam. soxna Madeleine Sène président Abdoulaye Wade wala njiitu PDS njiitu PDS ba doon àddu démb 14 juillet jëmee ci natangoom ak i ñooñam ak i farandoom wax ci wàllu taxawalum xëy ngir ndawi senegal promesse di diggéeya Malick Gueye bi jiite ndaw yu AFP dafa gis ne euh, doy waneeg ndeteelu jëm ci politique emploi ñeel nguur ak alternance du ANEJ du FNPJ du REVA bu mu gis ne ngëneel la ci ndaw yu Sénégal Malick Gueye al Ousseynou Diagne amul benn ouverture boo xam ne wax ko loo xam dina mën a tax ndaw ñi jàpp ni seen i problème dina dina mën a réglé wu donc je pense que nit ñi ci loolu la ñu la la ñu nekk léegi te xam nañ ni ni maanaam programme bi nga xamante ni ñu ngi koy proposé l les assises nationales te ci secteur jeunesse maanaam ñu bëgg passé évaluation instrument de politique de jeunesse yi ci teg yëpp que ça soit l'ANED office base euh, maanaam plan REVA ak euh, le fonds national de promotion des jeunes yooyu yëpp évaluation yi ñu ci def yëpp mooy instrument yooyu baaxul donc foog ñu am yeneen instrument yoo xam ni dina mën a jël en charge préoccupation jeunes yi doon nag une démarche participative ñu xam ni jeunes yi du ñu ci kaw rek maanaam élite bi rek la ñu war a promouvoir mais dañoo war a commencer ci suuf mooy maçon yi muy mécanicien yi muy menuisier yi mettre en place ay programmes yoo xam dina leen jàppale suñu jumtukaay ba ëllëg même kuñ mënta financer ci sa wàllu fond de roulement sax ñu mën la jox ay jumtuwaay yoo xam ni duñ ci mën a liggéey mais nag mën a liggéey foog courant am pour vous dire soubassement wu une bonne politique de jeunesse mooy il faut ñu régler ay les questions en annexe maanaam lu mel ni énergie je pense que war na foofu ay limitam pour vous dire que on a été déçu par le discours le discours a été vraiment partisan discours amul auteur discours bi du woon président de la république moo wax mais secrétaire général parti moo doon wax parti Malick liggéey bu euh, ndaw yu AFP euh, leneen ne ay xibaar ba tey ak RFM mbokk yi muy nelawuk Jacqueline Scott Lemoine démb nag euh, lañ ko doon gunge ci dëkkuwaayam bu mujj ci armée yi Bel Air mu fekki borom këram Lucien ay mbokk xarit ay kilifa ci wàllu caada gi rawatina doon ko gunge moom soxna soosé maggoon lool ci wàllu comédie reportage Al Ousseynou Diagne mbooloo bi bëri woon lool waaye rangoñ yi tamit bëri woon ci biir cathédrale souvenir africain ay jege ñaale Jacqueline Scott Lemoine ñu bëri jël kaddu Jacqueline bi nga xam ni di doomu Haïti ràññeeku na lool ci caada ñëwoon ci Sénégal ci atum 1966 mujjee jël nationalité bi ci 1976 kenn ci ay xaritam di député écologiste Ousmane Sow Ichard di seede. ci atum 1966 la Léopold Sédar Senghor waxoon intellectuel diaspora yi fi ñëwoon ci festival ba Afrique rawatina Sénégal nekk na seen réew tàllal leen ak Jacqueline daal di ko dégg booba tey ak Sénégal formé nañu fi ay xale yu bëri. ils ñu bëree ñi mu bokkoon seen Sorano rawatina nag jigéen yi nga xam ni kenn ci ñoom di ay Ba di danseuse bokk ci ballet national bu Sorano. yaay la woon suñu xarit Sorano fa la ñu yàgg nañ fa def nañu ñëwoon tamit teewal fa nguur bu Sénégal ministre de la culture Awa Ndiaye. ndax moo ñu bëgg. lu mu nekkoon ci Sénégal ak lu mu doon représenté ci Sénégal dañ ko xooloon ki nga xam ne dafa yore woon culture Sénégal. metti mettiwul ndax moom dafa bëggoon dell jegewaat Lucien Lemoine jëkkër ne yàlla dinañ bi nga xam ne foofu la nekk. bokkoon na ci ñi ko jege woon xam ko lool tamit waa ensemble lyrique traditionnel ñoom ñëpp ñu taxawoon def raie d'honneur ngir gunge Dakar dem ca Bel-Air wuyu ji Lucien ak RFM kump tàggoog nag yéen yegseeg yéen ci nataalab tey bi kanu leen di xamaleel mbokk yi moo jiite conseil national de la jeunesse euh, dale ko nag ay yëngoo moom maître Aliou Sow euh, ci mouvement associatif bi ci Kolda ga mu fekk baax ba ci googee conseil national de la jeunesse taxawaayam yëpp di benn ngir njariñ ak ndaw yu Sénégal ngir gën a xameek Aliou Sow maître Aliou Sow ñu ànd ak Mouhamed Ali Mouba avocat la mu nekk ndaw ñi ñun nag suñu association boobu kuréel boobu moo ko gañe woon. bi mu nekkee ci conseil national de la jeunesse ba léegi Aliou Sow euh, fanweer at ak ñaar nee na mi ngi def lépp ngir joxaat gëdd conseil national de la jeunesse. conseil aussi nekk na kuréel boo xam ne lépp loo xam ne mu ngi aajo ci wàllu jàppale ndaw ñi ci xëy walla jàppale ndaw ñi ci ñu gën a am ay possibilité pour liggéey walla ay possibilité pour bànneex ndaw ñi ñu aussi loolu. duñ ci fàtte li nga xam ne ni moom mooy lépp xeex jàngoro jàngoro ndaw ñi lu mel ni sida wala paludisme. ba léegi daanaka emploi bi yembugul waaye nee na am na ci bilan. si wàllu renforcement capacité maanaam yokk tàggat ndaw ñi si ay yorinu kuréel yi tàggat ndaw ñi également si wàllu doxalin kuréel yi. joxaat gëdd conseil national de la jeunesse moo tax Aliou Sow def discours bu mu def ci kanam président. président dafa soxla ku koy wax askan wi lu muy dund président tey. bu ñëwee ba situation 23 juin ak 27 juin ñu toll si président soxlawul ku koy tàgg président soxlawul ku koy vraiment dugal si ay logique yoo xam ne du du nekk njëriñu askan du nekk njëriñam moom. tey li muy ñaan yàlla mooy su paree ci conseil national de la jeunesse demaat ci cabinet am continuer liggéey avocat. jërëjëf Ali Mouba ñu yegg seeg yéen ci wàllu caada gi xalam ak Ndate Diop. jërë ngeen dal leen ak jàmm ci xibaaru caada ak cosaan yi oh. ajjuma ba léegi ñi yëngutu ci wàllu musique traditionnelle ci wàllu culture di fàttaliku Yandé Codou Sène moom waykatu séeréer bu mag bi mi ngi faatu woon fukki fan ak juróom ci weeru suleet ci at mee ñu génn Amadou Lamine Sall di poète di woon ndongo ci Léopold Sédar Senghor di indi seede ci woykat bi moom mu ni Yandé Codou dafay wéy di bokk ba léegi ci suñu patrimoine culturel national. waaw Yandé Codou suñ ko tuddee rek dañuy tudd Sénégal parce que bi ñu waxee ne am na indépendance xalaat Senghor bi nga xam ne moo nekkoon le premier président du Sénégal te suñu xalaatee Senghor rek dañuy xalaat Yandé Codou euh, parce que Yandé Codou moo nekkoon ci wetam moom moo nekkoon géelam comme ni ñu koy waxee. ba nga xam ne fépp fu ñu tuddee Sénégal fépp fu ñu tuddee Senghor dañ fa tudd Yandé Codou Sène kon nag Yandé Codou Sène dafa bokk ci ñun bokk ci patrimoine maanaam bokk ci ndono ñu pays àddina ak Sénégal kon nag moom kenn mënu ko fàtte kenn mënu ko fàtte parce que fàtte ko mooy fàtte Sénégal mooy fàtte ñun fan lañ jóge ak ñan ñoo ñu gunge ba tey donc loolu moo tax Yandé Codou nekk koo xam ne dafa nekk ci musique traditionnelle sénégalaise nekk jigéen joo xam ne pour euh, fàtte ko mu muy nekk parce ci fàttaliku googu ak màggal anniversaire bu njëkk gannaaw ba mu dëddoo àdduna ak njabootam daal di ci amal ci ajjuma ji ab bisub ñaan waaye tamit ab veillée culturelle boo xam ni amal nañ ko ci ajjuma ji ñu fas yéene ko ndar keppe fii ci diiwaanu ko Ndakaaru ci théâtre national Daniel Sorano ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet ak benn soirée de gala boo xam ne nii moom lañ ko jagleel. samba ndiina njaay ma ca jam ya njaay hutee boo amee mu do njaay samba ba tey Pape Fall ak orchestre bi mu duppee Pape Fall et l'African Salsa di magal anniversaire u seen fukki at ak juróom benn ci wàlluk musique ci scène nationale ak internationale ñoo ngi koy amalee ci maison de la culture Douta Seck ñu dem ba diwaanu ku Jurbel foofa wax ci mbirum caada ak cosaan capitalu Bawol mu mel ni wàlluk caada ak cosaan dafa nërmeerlu loolu la ko waral di yii di kilifa yi mu mel ni dañu joxul yitte bu baax a baax secteur boobu Mohamed Jo Diop doon artist di yëngu ci diwaan bu Jurbel ba noppi mën a fësal sa talent doon na lu jafeñ région bi amul dëgg-dëgg ab agenda culturel li ko waxal nag mooy kilifa yi joxuñ benn gëdd ñi nga xam ñooy yëngu ci wàllu caada festival de musique traditionnelle bi nga xamee ne équipe bi fi nekkoon bu délégation spéciale bu conseil régional moo ko fi taxawaloon daanaka bi ñu fa demee ba léegi amatul dara équipe bu yees bi nga xamee ñoo nekk ci bopp conseil régional bu Diourbel joxuñ ko benn fula ren sax Fesman moom moo ñëw jàppale leen ba tax ñu mën a organiser édition bu ren ci wetu ñi nga xamee ñooy waa conseil régional ak seen Fesmut am na ay initiative yoo xam ne ay nit ñoo ko yëkkatil seen bopp mouvement hip hop bi am na li ñuy woowee festival Kayrap festival doxas xasaayid tamit mu ngi waaj a amal ñaareelu édition Diourbel nekk gox boo xam ne caada am na fi solo lool waaye nag des na ñëpp ànd ci di puus mu dem ci kanam. si wàllu agenda culturel ñuy fàttali conférence de presse bi nga xam ni alliance culturelle africaine daañu ko amal ci samedi ji ñoo ngi koy amale nag ci dalu programme d'appui aux initiatives culturelles et créative du Sénégal ñu jeexale ci wàllu mbind di littérature ak cérémonie dédicace livre bi nga xam ni Diène Farba Sarr moom moo ko bind jagleel ko kii fi nekkoon jëwriñ ju njëkk di Macky Sall nekk tamit maire bu Fatick livre bi mi ngi ko duppee Macky Sall un combat pour la République cérémonie bi nag ñoo ngi koy amal ci benn hôtel ci VDN bi jërë ngeen jëf ci déglu bi xalam di leen jox daje àllarba bi di ñëw ci beneen numéro. RFM li bi ngeen taamu ci seen mobilier ak matériel de bureau.